maa ngi tudd Nourou Mbaye nekk président wu amicalu ndongo yu nekk ci daara ju kawe ju nekk université bu Ndar voilà comme ni ko ñëpp gisee tey université bu Ndar étudiant kawlukaay yi fa nekk dañoo def benn descente tey fii ci Kaolack pour wane seen naqar wane métier bi ñuy dund ci ñeent at yi nga xam ne toog nañ ko te amuñ ndimbal yu ci municipalité bi li nga xam ne métti woon na trop biñ ñëwee tamit joxoñ nañ baaraamu tuuma madame la maire Mariama Sarr te bu ko joxee bariam bu ñu ko joxoñee baraamu tuuma tamit bàyyiwuñ beneen autorité parce que dañoo defaale appel ci yeneen autorité juste dafa nekk autorité morale boo xam ne kenn waru koo jiitu ci ndimbal étudiants yi donc ci appel boobu ñu lancé autorité yi ci la monsieur Mamadou Ndiaye Rahma suñu papa suñu nijaay suñu mag ci la ko yëg woolu ñu fii tey ba ñëwee ñu toog ñu waxtaan ak moom mu déglu ñu bu baax defal ñu lu ñu autorité gëj a defal ak wala sax lu ñu mësta defal depuis bi amicale bi soso mu déglu ñu ñu exposé ko suñu problème mu jël ay engagement ak ñun lu ci mel ni problème mu logement pare na pour fayal ñu appartement bi ñu jël tout le temps ak euh, ak prix bu mu mënti laaj de même que aussi problème mu ticket yi pare na pour chaque mois mu jox quota bu am solo étudiants yi pour ñu mën a restaurer wu. côté caravane tamit dem beeg dikk bi tey yéen ñëpp gis ngeen ne taxawal nañ fi ñetti oto te oto yooyu xaalis bu bari moo koy fay pare na pour chaque caravane bu jotee mu prendre ko en compte étudiants yi nombre ñu mënti toll ak nu ñu mënti ñëwee mu jël bus yi fay ko de même amicale bi ñëwoon na fi ak ay bor. parce que dafa xaw a métti det yooyu yëpp tamit décidé na ne dana ko fay donc engagement yooyu yëpp jëlal na ko si ñun ñun tamit expliqué nañ ko projet yi ñu am Kaolack parce que tooguñ ci rek di laaj amoon nañ lu ñu mën a apporter réew mi amoon nañ lu ñu mën a apporter Kaolack donc projet yooyu soxla nañ ci accompagnement te comme moom ñu ngi ko ciy gën a woo accompagnement étudiants yi soxla nañ formation professionnelle soxla nañ leneen ak leneen ak leneen parce que pare nañ pour servir réew mi pare nañ pour servir seen ndax fépp fu ñu moom la ñuy ndamoo donc ñu ngi koy ñaan mu gën a taxawu étudiants yi di woo tamit yeneen autorité yëpp leen wax ne étudiants yi seen régler seen problème du mës a jeex donc ku ci nekk da ngay ñëw def ci loo ci mën bu ko defee ñu mën a taxawal étudiants yi dëgëral seen njàng ñu jàng ba dëgër pour mën a ñëw serviraat seen dëkk incha allah rabbi bon fee ñu fa toll au nombre de ci lu toll ak junni ak téeméer ak euh, ñaar fukk ak ñaar ci commune bi mais am na aussi yenn zone département yi nga xam ne ñun ñoo leen prendre en compte yenn communes yu ndaw yi nga xam ne amuñ fa amical donc ci amical ARK mooy moom mooy amical maire moom moo leen di boot donc noonu la demee.